asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxames benn fan ci ramadan muy weeru koor ci atum a ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk a ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett benn fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci jàngoro siti ak ndof ak ngaana ak mbooleem jàngoro yu bon yi allahumma inni a'uudu bika min albarasi waljunuuni waljuzaami wa min sayyil aqbaam allahumma inni a'uudu bika min albarasi waljunuuni waljuzaami wa min sayyil aqbaam xadisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu dikkee dañuy ubbi wunti àjjana tëj wunti sawara jéng saytaane yi xadis bi buxaari ak nettali nañu ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida jaa ramadaanu futixat abwaabu aljannati wa xulliqat abwaabu nnaar wa suffidat ash-shayaatiin rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtu na tàbbi cinq heures cinquante cinq juróomi waxtu yi tegal juróom fukki simili ak juróom tisbaar treize heures quarante et un benn waxtu bu tegal ñeent fukki simili ak benn takkusaan seize heures quarante et un ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak benn timis 19 heures 20 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili gee 20 heures 31 juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak benn loolu mooy waxtu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar jant bi dana fenk 7 heures 10 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili di so 19 heures 16 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom benn waxtu jàpp wi muy waxtu wi ñuy bàyyi xëdd cinq heures quarante sept juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñaar waxtu dog wi sept heures vingt juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili yàlla na nu yàlla nangu te nangu leen amin